ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. yàlla bëggoon nañ fa ak si yeneen anam yu dul mais suñu tànk tey yi man préfet sous préfet ak maire ñu ñu àndal euh, dañuy ñëw d'abord pour massawu la parce que lii si sa njaboot la dal dafa demul rek doo xam jéye ji lakk gi ni mu amee doole ñu bëri yàqutil na yàqule nañ ci commerçant yu bëri yàqutil nañ ci yu ci bëri daañ xëy daan fa liggéeyee seen liggéey dina sooxee fii àddina toll lu mel nu bu dalee ci ab dëkk daal ci aw askan loolu lu tiis la loolu lu lu lu lu lu yéeme la lu mat a taxaw la moo tax nag ginnaaw yaa yëlif dëkk bi tam euh, ñu amoon sew yaakaar bu baax dëgg yàlla ne liggéey biñ bëgg a def parce que lii bu amee ndogul suñ borom la waaye nit tam lu ko dal rek day jéem a seet li tollook moom li tolloog xelam li tolloog doole mu jëm ko def pour mooy tëndiku ko boobu liggéey nag ginnaaw bañ la masawoo ci lii parce que lii bu ku mu dal sa njaboot metti na ñu ngi ñaan ngay jàppale ñu ci ci liggéey boobu ñu bëgg a def euh, maire dina woote ñun ñëpp dañ koy woote bi tuubaa lay doon bu defee man ma ñëw ak service yi ak sapeur pompier ñun ñëpp ñu jéem a seet nu ñuy def ba organiser waat marché bi ndax bii bii lakk gi amee deux heures du matin la deux heures vingt rek ñaar fukki minutes dañ ci teg rek sapeur ñëw kon boog sapeur yi tardé wuñu waaye amuñu fu ñu jaare yoon wi yëpp ñii puus puus a ngi fi te waroo faa ne fii taabal a ngi fi te waroo faa ne fii cantine a ngi fi te waroo faa ne ba tax na ñoom amuñu fu ñu jaare ba fay lakk gi ba heure bi ñuy wax am na ay tàkk-tàkk fa lañ jógee te bu fekkoon loolu amul yoon wi libre na fa ñu war a ne ku nekk fa nga war a toog toog nga fa xëñ na du bu mettitam du méttee ni mu mettee nii loolu nag dafay laaj benn liggéey boo xam ne foo ñu toog waxtaane ko waaye day laaj nga dugal ci sa kàddu dugal ci sa ñaan bu ko defee yàlla tàppe xol yi ku ñës itam jegel fii nga dem ci marché bi wala nga tooge na le nga nangul ñu ko te xam ne lu mel nii rek la ñuy daw seen njëriñ rek la daw liggéey boobu nag ah foog nga gunge ñu ci. Ah, waaw incha loolu daal waaw. waaw waaw waaw dëgg yàlla ci ñaan ci joxe ci ay kàddu. ne leen daal luñ ci luñ leen sant rek. Mm-hmm.